léegi nag beneen point bi ñuy waxtaanee mooy intellectuel yi génn ci réew mi doon ay kilifa ñu gis waa nguur gi di leen tontu gis nañ ci abdukarim Karim Fofana gis nanu Yoro Dia gis nañu ay boy cocher yooyu gis nanu ñëpp ñu génn di wax. li ma waxoon rek ci soxna Sonko yi laay waxaat lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole jug bi ñu jug ñoom intellectuel yooyu la toll ci fanweer téeméer ak ñeent fukk Boubacar Boris Diop sànq lim naa leen ñoom filmin ñoom Serigne Diop lu tax ma tànn ci Serigne Diop sëriñ Diop nekkoon na fi ministre de la justice Serigne Diop nekkoon na fi médiateur de la république Serigne Diop agrégé la ci droit constitutionnel du n'importe kii moo jiitoon PDS rénovation ñu naan ko Serigne Diop Sadaxta ñii ay élewu Abdoulaye Wade lan ñii duñ waxantu non duñ waxantu ñii buñ demee ba jamono ñu jug bind wax ci démocratie bu senegal ak ni mu delloo ginnaaw xamul lu tax ñu sañcee wax intellectuel yi parce que démocratie Sénégal tàmbalewul ci Macky Sall Senghor daa am lu mu ci def Abdou Diouf am lu mu ci def Laye Wade am lu mu ci def nag yóbbu démocratie ba mu koy moom Laye Wade Abdou juf te am lu mu ci def jàkka jàng ku mën a nodd noddal ñu dem ba egg ci réew moo xam ne opposant bu gën a mag ñu naan ko Ousmane Sonko jël nga ko tëj ci kaso bi tas parteem yemoo ci loolu lu jege ñaari junni ci ñoo xam ne. ànd nan ak moom wala ñu safoo ko ñi ay delli d'opinion ak lu leen mën a jingal ne ràpp ci kaso bi te àttewoo ci kenn ñi dem ci élection yoo xam ne yow nee nga bokkatoo mais da nga fa mel ne danga nga bëgg a tànn ñi war a bokk maanaam sàmba mënul mën kanamam mën ginnaawam ñu dem ba liberté d'expression ci média yi ñaata journaliste lañ fi tëj Walfadjri tëj nañ ko un mois tëj ko tëjaat lu ne ñu daj ko tey jii képp koo xam da ngay génn sa kër rek di wax da ngay tàggu say mbokk wala ñu lay artu ndax lu ne mën na la ci fekk du Sénégal bu mel noonu la Macky Sall doonu ñun suñu démocratie daa am ay nit ñu ci def ay jéego ay jéego am jaar-jaar bu rëy mais bu ñu gisee démocratie boobu nguurug Macky Sall am fu mu koy delloo li ma doon wax naan réew mi dafa mel ne amul kuy wax déet loolu tax génn intellectuel yi baax. maanaam li naan ku xamul buur saay na ñun la buur dee na ku xamul buur dee na ñu wax la leneen maanaam dafa jot ñu ne nguur gi arrête taxawal nag parce que nag dafa mel na fas wu màmm xam na la Idrissa Seck waxoon Macky Sall mooy ba mu ne ko baal sa karawaas gi mun ko sa màndarga fas la sa màndarga fas woowu nag moo waral fas bu bu dawul dañ koy làbbali waaye fas wi waxuma la làbbali mais day màmm kon nag ñoom Serigne Diop yi génn doon ay intellectuel politique intéressé wu leen ñu doon ay nit yu libre doon ay borom xam-xam fu ne ñu dem fa ci addina bi ñu leen di consulter mais ñooñ bu gisee senegal jiitu ci pax mi ba pare génnam bëgg a nekk ci ginnaaw mais ñooñu war nañ jug ne artu na Macky yónni doy na abaana gasi a faga léegi nag lu ne da am fu muy yem nit ku ne day am lu muy desal juróom benn weer mënu la fi dese. léegi ñu bëgg ñu yóbbu ci foo xam ne kenn xamul lan la kon génn bi ñu génn ak lettre bi ñoom Filmini Sarr génn bind mais lettre boobu waaye ay dëgg kese la ndax Filmini njëkk ko bind ci nguuru Macky Sall ah. lii bindoon na ko ci Abdoulaye Wade di nga bari na ci intellectuel yi di wax ni en 2019 bi kii di Boris Diop. di wax ak yeneen intellectuels yi mais waxuñu woon dañ leen doon wax naan sax ni Macky ni ngeen waxee ci moom sax waroo leen ko waxee teel na teel na waaye bu demee ba ñi ne woon tekk yépp jug ne léegi nag wax ji nan ko wax parce que kon ñu ngi bëgg yóbbu ci niveau boo xam ne kenn xaaru fa woon Sénégal te am na fi ay réew yoo xam ne ci Afrique tey ji fi mu mujj mooy seetaan boo xam ne seen i intellectuel dañ ko seetaan looloo tax ñii di ñoom Serigne Diop di intellectuel yi. bu leen dégloo xol na leen déggee xel ndaxte ne koo xam ne yootuwul réew nekkatul candidat ci dara ku mën a falu tamit moom du wàññi ci dundam dara ñooñu bu ñëwee ne Macky defaraat te toogaay xoolaatal génneel Ousmane ko mais parti bii di Pastef fexeel ba delloowaat ci ko ndax ni mu ko tasee du noonu delloowaat ñu ci Masmoud jot ak kii di Senghor ci. ak Mamadou Dia ci atum 60 ya léegi ñu gis ay nit yu génn bokk ci mouvance présidentielle bi di tontu les répondeurs automatiques du palais génn lu ne ñu wax ko mais yaru jàmm yi di wax démb mais seen bu ne Modou Modou dina ma seede ak saa njóogu yoro jo danoo demoon ba foog ni sax actionnaire wu di nekk jamono la dinu jàngal ay leçon démocratie ay géopolitique donc tey jii parce que jege na makki Sall mooy porte parul président xaw ma gouvernement doo comprendre lan la ca parce que ñoom cacophonie totale doo xam kan mooy kii wala kee mais génn di attaqué ñooñu mais lim leen di attaqué moom démb moom la gëmoon mooy réew mu am liberté d'expression réew moo xam ne démocratie bi day jaar yoon réew moo xam ne lépp dañ koy teg ci yoon ñu gis ko yow ku mënul lijjanti soble sénégal sénégalais ci màggal gi yow war nga war nga jug di lijjanti mbir yi. Abdou Karim Fofana moom tamit jóg des fois doo comprendre lan moo xew nga gis ay jeunes cogère ay intellectuel bu ñu bindee man dama jàpp ni ay intellectuel ñoo leen war a tontu ana int ay intellectuel nekk ci nguur président Macky Sall doo dégg Abdou Latif Coulibaly de doo ko dégg parce que au moins moom am na fu mu egg doo dégg ma Samba doo dégg ma dem ba mais da ngay dégg ay second couteau yoo xam ne tey ji ñoom ban yegsee yàggul am na ci ñoo xam ne danoo dabe mais am na ci ñu wër président Macky am na yoo xam ne duñ ci dugg parce que ñii sosuñu fi dara de seen pétition bi ñu def ak li ñu bind ci Sénégal mais bu ñu xëyee ñun ñëpp moom la ñuy dund moom la ñuy gis am na ku leen tontu mu ne li lay wan ni ñoom danoo nekk en panne d'argument mu ne jamono ji ngeen di wax ci jàpp Sonko ak tas Pastef ak emprisonnement yi bi ñuy wax fi bi ñuy def fi attentat ci Yaraax la attentat wala mais attentat balaa ñi ñuy firndeel attentat la wala ay terroriste mais enquête bi mais ñi ngi ci enquête mais ñoom ñoo xëy rek na cëpp na lay rek qualifié ko attentat terroriste boo xamul amul ku ko revendiqué amul doo xam lan moo xew ñu xëy naa nu ay téwo ca Touba jékki-jékki xëy naan non non tentative d'assassinat dafa amoon organisation wan ñu fi ay nit yu ñu wan ginnaaw à la télévision ñu ngi ci enquête yàlla na jur jàmm mais tey jii jamono jin naan les intellectuels danoo war a wax ci station Total yi ak Auchan yi ñuy yàq ci réew mi kenn waru leen a yàq BRT bi kenn waru ko yàq mais ñoom liñ fi ñu juumee seen argument li ñu waroon wax mooy lu jege juróom benn fukki nit bi ñuy faatu ci ay manifestation deux mille vingt et ak deux mille vingt fan ngeen nekkoon les pour pourquoi ñoom ñiy wax rek ci dégâts matériels yi mais mordom yi duñ ci wax nee nan jàpp nan ay nit association de malfaiteurs appel à l'insurrection jàpp nañ ay lii terroriste lu ne jàpp nañ ci ay nit mais ñi rey anañu ak boor bu ñu war a féete mais tey ji bu ñu bëggoon a dimbali mais 2014 2021 ak tey ji mais dan naan ñu ñii ñoo rey wala sax ñu jàpp ñaar wala ñetti ñoom ñoo rey parce que li yàlla sàkk nit a ci gën fi ñuy rendee kenn du fa jooy góom yow ngay jooy ay matériel yu ñu yàq ak ay nit yu ñu gaañ ak fekk ay nit dee te nangoo ci wax ñoom tey jii bu loolu lañ waroon reprocher les intellectuels ne leen ñi dee mais ñi dee doo dégg ñi ci nguur gi ñëpp di ci wax te ñi dee ñoom da leen war a lijjanti xam lan moo leen rey ak kan moo leen rey kon tey jii intellectuels yi génn. da leen war a jox cër respecté leen mais aussi seen wax ji mu bañ a doon wax ju ñuy déggee xol mais déggoo ko xel parce que wala fii dañuy faral di wax naan sam noon de ko sax déglu ndax mën na wax lu lay jariñ ndax démocratie bu Sénégal lu tax intellectuel yi war a taxaw na Macky déedéet comme ni ko ay Alioune Tine defoon en 2011 2012 ay Abdou Latif Coulibaly defu woon ko ko président Macky sàll mii taxu woon ci mais taxawaay boobu tey ji la ñeneen war a taxaw ba réew mi fi ñu ko fekk duñ ko salfaañee tey ji ku def na ko su dul noonu mën na la yóbbu ci yoon mais li Pastef di dund képp ku ci ànd mais yaa ngi dugg ci loo xamul te ñoom danoo waroonoon tàcc ñoom Serigne Diop intellectuel yi parce que tey jii bul bi dee wëlbati ko nguurug Macky Sall gii fii ak 6 mois mun na fi jóge keneen jël nguur gi bu boobaa ñoom dañuy soxla ay nit yu maandu yu farul fenn yu leen protéger kon ñoom danoo am intérêt di bàyyi xel li intellectuel yi wax mais aussi te di ci def njàngat mais aussi bañ a jàpp ni rek képp ku jug wax Sonko nga àndal Sonko nga àndal loolu bu ñu ko defee juum képp ku yow kàddu nga jàpp ni Sonko la àndal non ñu bu Sonko nekkul woon ci yoon ñu wax ko ko ndaxte nag bari na ci ñoo xam ne tey ji li ñu war a wax Sonko ñu ngi ko koy wax ci ñàkk ànd parce que bari na ci ñoo xam ne tey jii ci ñii koo ci laaj mun la ànd na ci dialogue Sonko demul ci dialogue koo ci laaj ñu ne la état de lañ ne procès Adji Sarr ba mu waree dem daa war a dem am na ñu gëm loolu te pourtant ban ko waree wax dañ ko wax mais bu dee ni nag politique dafa egg ci noonoo ak mbañante di utiliser les armes non conventionnelles mais ñi war a jug dañuy jug parce que réew mi bu yàqoo ñëpp la yàqul te réew mi mag Macky sàll moomu ko moom nee ne dans si mois day dem kon tey jii li Bougane Gueye Dany di wax laa koy fàttali mooy Macky bi ngay jël réew mi dal la jox réew mu ne ñum mais booy dem. mais bàyyil ñu fi réew mu ne ñum mais danoo bëgg héritage boo xam ne keneen ku fi ñëw ëllëg doon président de la république fekk ci dëkk bi jaar ci yoon fekk fi dëkk boo xam ne day am ay om d'état da fekk fi benn état de droit mais tey ji li ñuy dingat ci réew mi du rek intellectuel même les magistrats bari na ci ñoo xam ne danoo jàpp ni li xew ci réew mi ëpp na wate tax jëm ci benn boor ku wax nga duma yoon di jeng loolo bari nañ ñu ko seetlu tey jii wax ji mooy loolu mu doonal rek ñaari waxtaan yoo xam ne lépp dañ koy tënk rek ci ni grève Ousmane Sonko ak génn soxnaam yi nit ñi jàpp ni doonul lu gën lu gën la man bu ma mu arrêté grève bi tey mais. grève de la fin bi ak génn soxnaam bi moo jur intellectuel yi génn moo jur sëñ Mountakha génn moo jur leneen ak leneen moo jur waa Yewwi génn ba ñu bari njot ni mun na am contrôle judiciaire kon di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ci kaso bi ñi ci ne ñëpp génn Cheikh Bara Ndiaye suñ xarit yàlla na génn te ànd ak wér màggale ci jàmm am nañ ci yaakaar suñu borom lañ koy ñaan yàlla na ko suñu boroom def